kallaaw côté yeneen dëkk yi côté Pire ak yooyu seet ba xam ndax foofu am na fa ay nitu yàlla yu fa làqatu ñooñu nag laa bëgg a waaye ndakaaru moom pare naa fi ndax sama gars yi su ma leen woowul sax ñoom ñu ngi daw ñoom ñëpp wut si ma kon ñu gis ne Iblis noonu la ginnaaw bi ko yàlla defalee lii ba noppi may ko doole jooju moom Iblis doole jooju mu ngi ko njëkk a ci suñu maam Adam ne ko jël na suñu maam aadam alayhi salaam dugal ko aljanna mu nekk nag kër gi nga xamante ni fa la dëkk mu nekk barab bu rafet barab bu naat barab bu bëri xéewal barab bu mucc ayib barab boo xamante ni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dund ba neex ñu ne لما أسكن الله تعالى آدم الجنة كان يمشي فيها وحشيا لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيني bi nga xamante ni yàlla dëkkal na suñu maam Adama ak jana nee na mu commencé nag moom suñu maam Adama di doxantu wante mu ngi wéet ndax moom rek moo fa nekk nee na amul ku mu waxtaanal amul ku muy toogal nee na amul itam ku ko wéttali yàlla roof ko nelaw mu tëdd di nelaw yàlla jël ca faaru càmmoñ ba ci la bind suñu maam xawa daal di koy teg ci wetam bi nga xamante ni suñu maam Adam yeewu na ci la gis nag suñu maam Xawaa toog ci wetam nekk jigéen ju rafet te jekk nee na malaaka yi di ko seetlu nag ndax am na lu ko yàlla jàngaloon mu di tur ya muy xam-xam bu nga xamante ni malaaka yi sax xamuñu ko wante malaaka yi jàpp nañ ne suñu maam Adam xam na lu ne moo tax bi mu gisee Xawaa ci wetam daf ko laaj malaaka yi dañu ko laaj ne ko yow Adam ndax xam nga kii toog kan la mu ne kii lii toog lan la mu ne lii jigéen la ñu ne ko jigéen mu ne waaw ñu ne ko nu mu tudd mu ne mu ngi tudd xawaa ñu ne ko kon wax nga dëgg ñu ne ko li ma sumiyat xawaa lu tax ñu tuddee ko xawaa mu ne li annaha xuliqat min cheyin xay mu ne ndax dañ ko bind ci lu dund looloo tax ñu ñu tuddee ko xawaa ci man leen ko bindee te man jamono biñ koy bindee ci man fekk na boobu maa ngi dund looloo tax ñu tuddee ko xawaa dañ ko bind ci luy dund ñu ne ko waaw lu tax yàlla bind ko mu ne yàlla daf ko bind pour muy seral sama xol man may seral xolam moo tax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbëggeel amu fa kenn du seral sa xol moroom ñu ne inutile waaw nanu tekki sëy ba ndax sëy ba day nekk sëy bu nga xamante ni sëy bu texee di lay nekk moo tax loolu la alquran wax ne huwa alladi xalaqakum min nafsin waxida wa jaala minha zawjaha li yaskuna ilayha ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni jigéen ñu ngi ko bind ci faar te faar dafa dëng mu nekkoon di leen muñal jigéen ñi ndax mënuñoo bañ a dëng tax jigéen boo nekkee ak moom foog nga muñal ko ñu ne suñu maam aadama alayhi salaam bi mu gisee maam xawaa toog rafet loolu tabaarakallahu nee na dafa tàllal loxoom nag bëggu ko koo teg nee na malaaka yi ne ko déedéet yow aadam loolu warul warul am kii leew la waroo jël sa loxo teg ko ko ndax kenn mayegula ko waaw fokk nag nga wut can jox ko waaw ñu fas sëy bi nga soog a jël sa loxo teg ko ñu ne ko Adam laaj leen ne leen waaw can gi ñaata la ak lan mooy can gi ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk can gi su ko defee mu lew la suñu maam Adam ne leen kan mooy Muhammad ñu ne ko mooy yonent bi mujj ci say sët te itam bu dul woon ak jëmm jooju ñuy wax Muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëmm jooju moo tax yàlla bind lu ne ci la suñu maam aadam daldi di jullee ci yonent bi ñett yoon yàlla daal di fas sëy bi ñu ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla dëkkal na ko àjjana waaye ba mu ko fa dëkkalee nag am na lu mu wax ak moom daf ne ko àjjanaa ngi noonu xéewal gi bari na wante nag benn garab rek laa lay tere garab googu bu ko laal bu ko jege wante waxu ko lu tax bu bu ko laal wax ko lu tax itam bu ma ko lekk e alquran wax ni ya adam فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يا لني يا آدم أسكن أنت فيل بي لتخمنك fi'lul amr ñu adressé ko aadama directement loolu day wane ne yàlla ngi junj ci moom ne ëllëg dana nekk yonent te dana ko wax yu loolu tax boolewu ci maam aadam maam Hawa daf ne ko rek uskun mënoon na ko wax uskuna waaye daf ne ko rek uskun waaw kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko wax yu jox ko risalaam moo tax mu ni ko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna waaw wante nag comme lekk ak naan ñépp ci yem ni ko yonent di defee noonu la ko kudul yonent di defee noonu la ko yéeféer bi di defee noonu la ko kàccoor bi di defee loolu tax nag mu boole nag xawaa eh, ak suñu maam Adam ci benn fiil bi def ko tasniya mu ne fa kula min xaytu chituma pour wane ne lekk ak naan ñépp ci bokk yam waaye nag ak mbaax moom ñen nag mën nañ koo am ñi ca des duñ ko am kon fa kula min xaytu chituma lekk leen lu leen neex ak fu leen neex ci àjjana wala taqraba hadihi shajara waaye nag garab gii bu leen ko laal bu leen ko jege fa takuna min alzalimin kon su soo amee nag da ngeen bokk ci way tooñ yi wante moom iblis laanatullahi aley ba mu déggee ne suñu maam aadam mu ngi àjjana xolam gën naa añ añ ndax yaa yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yemamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ añ mu añaane lool suñu maam aadam kër googu di àjjana mu ne nag nu mu mënti def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junni junni at yàlla dugaluma àjjana e, tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana daal di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa e, fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompé suñu maam aadam ak Hawa ba e, génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere moo tax ñu ni moom Iblis ñëw na ci buntu àjjana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci bunt ba di taaxirlu rek lu génn waaw yantadiru xuruja xaarijin min al janna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waa jooju dugalee ci biir aljanna moo tax ñu ne toog na fa ñetti téeméeri at yàlla génnewul dara ci biir àjjana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg nee na noonu mu fa toogee ñetti at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee taawuus mu di jàmm jóob benn picc mu rafet la buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen pale yi ndax dafay rafet picc mu bari donq la te rafet jàmm jóob moomu moo génn xam naa dafa am luñ ko santoon ba mu génn bi mu génnee nag ndax wax nañ ne sax picc yi nekk àjjana yépp mooy seen sang ndax boo ko gisee xam ne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmm la te rafet bi ko iblis gisee nag daf ne ko ayyuhal xalqul karim man ant ni ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko mas mu ko noo tudd mu ne ko mësuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet jàmm jóob ne ko ana tairun min tuyuril janna man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi mu ne ko ismi taawus taawus leen may wax nee na iblis daal di jooy nag eh, jàmm jóob bi ne ko yaay kan lan moo waral ngay jooy iblis ne ko ana malakun man de malaaka la ndeke day fen jinne la du malaaka ne ko man dama jooy ndax dama am naqar mu ne ko ban naqar mu ne ko xoolal ni nga rafetee ak ni sa bind rafetee ah te itam du mujj rek lu dul da ngay dee mu ne ko man damay dee mu ne ko waaw waaw da dee mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ne mbindeef yépp ay dee waaw ñépp ay de mu ne ko nag gis nga bu fekkonte ne amoon naa pexe ba dugg ci àjjana ji am na benn garab goo xam ne su ma leen ko wanee garab googu ku ca lekk doo dee ndax ña cay lekk ñépp dañuy dund ba faw nee na piccum jàmm jóg bi nag comme dafa bëgg àdduna moom itam nekk itam tabarkàlla picc mu bëgg boppam daal di koy wax ne ko ay na tilka shajara garab googu gumu gan garab la fu mu nekk iblis ne ko hiya fil na mu ne ko garab gi mu ngi ci biir àjjana nee na jàmm jóbbi ne ko waaw kan moo ñu mën a wan barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko Iblis ne ko xanaa man man de xam naa euh, garab xam naa barab bi mu nekk xam naa place ba mu ne ko soo ko soo ma dugalee danaa fexe ba wan leen garab ga ndax xam naa barab ba mu nekk mu ne ko kayfa lii bi idxaalika aljanna wala sabila lii ila dalika li makaani ridwan mu ne ko nu ma la mën a dugalee àjjana te gardien àjjana bi ñuy wax ridwaan malaaka la moo xamante ni malaaka mu vigilant la ku ñaw la te mën a surveiller damay ragal su ma la dugalee mu gis la te bu boobaa nag mën neen ma caa mbugal mbugal mu metti mu ne ko te itam kenn amul droit génn ci àjjana wala nga fay dugg te joxoo te laajuloo ko ndigal mu ne ko wante nag am na benn mbindeef boo xamante ni mu ngi ci biir àjjana ragal naa ne moom dana la mën a dugal su fekkente ne gisee nga ak moom ndax moom mooy bëkk néegu euh, xalifatullahi aadam mooy bëkk néegu maam aadam moom boo ko gisoon dana la mën a dugal mu ne ko waaw kooku kan la mu ne ko moom la ñuy wax alxayya maanaam alxayya mooy jaan mu ne ko jaan daal moom la yàlla délégué suñu maam aadam mooy bëkk néegam moo koy doxal ay service am moo koy defa doxal lépp moom ko moom itam mbindeef bu rafet la soo ko gisee nii der ba dafa sell dafa rafet te itam ku sopplu la boo ko gisoon daal moom dana la mën a dugal ndax am na daraja lool ci àjjana ne na ne ko kon nag gaawal nga dem ci moom nga ne ko e, mu ñëw bu ñëwee dugal ñu àjjana su ko dugal ma àjjana su ko defee ma won leen garab gi ngeen mën a am yéen itam dund abat nee na Taawus daal di wëlbatiku nag daal di ñëw nag ci jaan bi mu ñëwee ne ko ah gis naa daal benn malaaka mu nga fële ci bunt ba nee na dafa bëgg daal ku ko dugal ci biir àjjana ndax am na fi garab goo xamante ni yàlla ngi koy tere waaye garab googu dégg naa ku ci lekk rek dootoo deyeeti loolu tax yàlla di ko tere nee na e, jaan daal di daw daal di génn bi mu génnee nag ñëw fekk iblis taxaw nee na mu commencé nag di waxtaan ak moom iblis jaar ak moom fa mu jaaroon ak jàmm jóob nettali ko wax ko la mu wax jàmm jóob ne ko daal mën na leen wan garab gi léegi nag jaan ne ko waaw nu may def kayfa lii bi it xaalikal janna wa wa ridwaanu isa raaka ah mu ne ko naka laa lay dugalee na te ridwaan a nga nële te bu la gisee moom loolu moom mën naa ci am sama toroxte ba faw mu ne ko ah man mën naa def pexe mu ne ko pexe bi nan la mu ne ko damay soppaliku ngelaw nga ngaang mu dugg ci sa ci sa gémmiñ su ko defee nga ñepp waaw mën nga dugg ba ci biir soo demee ba ci biir nag nga daal di may yàbbi danaa mën a génn jaan daal di ngaang iblis daal di soppaliku ngelaw daal di dugg ci biir gémmiñ gi jaan daal di ñepp daal di ram ndànk dugg ci biir ba mu demee nag ba sori lool ci biir àjjana ci la ko yàbbi nag iblis nag ca la deme fekk suñu maam adam ak suñu maam xawaa ñu ngi toog mu daal dem nag ca garab ga fexe ba yóbbu leen fa ba leen fa yóbboo nag ca la commencé nag di wax ak ñoom ne leen waaw yéen lan la leen seen boroom wax ñu ne ko yàlla de moo ñu dugal fii mu di suñu këru taraanga wante booba ñoom xàmmewuñu sax iblis mu ne ko yàlla moo ñu fi dugal mu di suñu këru taraanga wax nañu nag ne lépp lu fi garab mën ngeen koo jëfandikoo waaye am na garab gum ñu tere ne garab googu daal buñ ko laal moo di garab gële iblis daal di jooy jooy yu metti di wane ne daf leen yërëm di wane ni itam daf leen sopp adam ne ko looy jooy mu ne ko ah dama xam ne daal yéen ay xale ngeen yéen daal xamu leen li xew xam ngeen lu tax yàlla tere leen garab gi ñu ne ko déedéet xamuñu ko mu ne ah yéen seen bind bi ni mu yi ak ni ngeen jekkee tabarkàlla yéen su ngeen lekkee ci garab gi dootu leen dee da ngeen di am pouvoir bi yàlla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund comme moom ni muy dunde loolu rek moo tax mu tere leen garab gi de waaw mu commencé nag def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nag di am xel ñaar di xalaat iblis bàyyiwu leen bàyyiwu leen bàyyiwu leen ba li ñuy wax naan jigéen moom dafa faible faiblesse suñu mam xawaa tax moom ca mu daal di dagg ci garab gi daal di lekk bi mu lekk itam jox suñu maam aadama suñu maam aadama dug mooyu wante itam dañu wax ni góor lu mu am am kàttan moom am na fu ko jigéen mëne waaw ndax góor moom bu xasee bëgg jeex na day doye di lool waaw day nekk ku faible ci kanamu jonga mu jëm bëgg faiblesse suñu maam aadam nag taxoon ak itam e, xalaatu iblis yu ñaaw tax na itam soxna sa fexe na ba lekkuloo ko garab ga ba ñu ko lekkee nag ci la ñu yëg ne ndeke def nañu lu ñaaw loolu la alquran wax ni fa waswasa lahuma sheytaan ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين qaala fiha taxyawna wa fiha tamutuuna wa minha tuxrajuun yàlla nee na seytaane jax-jaxal na aadama xawa pour mën leen a def loolu ñaaw nee na ba leen tere woon def neen ko moo di lekk nanu garab ga ndax cheytaane moo leen wax ne maa nahaakuma rabbukuma an haadihi shajara yàlla terewu leen garab gi illa an takuna malakayn lu dul ngeen nekk ñaari malaaka wala ngeen bokk ci ñuy béel ba faw du ngeen dee mu daldi giñ moom cheytaane giñ bu foor ni leen man nag dama leen di laayi biir rekk giñ naa ko ci yàlla ne dama leen di laayi biir wante li ma leen wax mooy dëgg namm ma ci dara feeñu leen itam wan leen ne mooy iblis ndax bu ñu ko xamoon daw ko nee na aadam itam ak xawa ñoom yaakaar nanu ne ku giñ ci yàlla rek giñ ko dëgg la loola taxoon ñu rafetoon njort ci ne iblis li mu wax dëgg la nee na moom iblis war na leen nee na ba ñu xëy lekk garab ga ba ñu ko lekkee nag nee na ci leen yëg ne ndeke def neen lu ñaaw nee ci la ñu commencé nag yëg bakkaar bi ñu def ñuy daw nag ñoom di làqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamante ni moo nekk ci àjjana nee foofu nag la leen yàlla woowee ñu dégg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma shajara xanaa terewuma leen woon garab ga ma ne leen inna sheytaana lakuma mu mubin sheytaane seen noon la na ngeen ko moytandiku ngeen ñàkk fayda ba lekk ci garab gi foofu nag delluwaat nanu vérifier waat seen bopp ñoom xam ni itam wax dëgg yàlla seytaane nax na leen bala leen yàlla tere woon def nanu ko wax nanu ni garab googu ba ñu ko daggee garab ga dafa nàcc génnee deret ñu ne deret jooju génn ci garab gi moo tax yàlla ne suñu maam xawaa comme nàccal nga garab gi dana la nattoo weer wu nekk danga ci gis deret mooy baax bi nga xamante ni jigéen ñaa ngi koy gis weer wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko danaa la ko nattoo danaa ko nattoo itam say sët kon nga xam ne deret jooju moom moo waral baax am na itam ñu wax ne doomu euh, nit mësul xam ne mosul xam awra ndax suñu maam Adam ak suñu maam Hawa bi bi ñu nekkee àjjana nee na soluñu woon yére ndax booba xamuñu woon lu ñaaw lu rafet rek la ñu xam nike garab googuñu laal garab goo koy wane lu ñaaw ci nit moo tax ba ko laalee nag ci leen gis ne ndeke ñoom kat soluñu yére moo taxoon ñu doon daw nag di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk rusatee gis sa morom nekke garab googu nag moo ñuy wan mooy garabu ay moo ñuy wan eh, li nga xamante ni baaxul waaye bu njëkk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yàlla orienté ndeke seytaane fexe na ba jël lu bon nag méngale kook ñun te lu bon loolu yàlla bëggul woon ñu laal ko mooy di garab googu nga xamante ni moom la tere woon suñu mam Adam ca àjjan kon mbokk yi ñu gis ne iblis mooy noon bu bon bi tey jii defloo na erreur bu rëy suñu maam aadama ne ko ñun ñi ñëpp àjjana la ñuy dëkki wante lii suñu maam aadam def ak xawa dana am nag mbugal mu leen ci yàlla di mbugal incha allahu ci ajuma ji di ñëw ci leen fas yéene leeral nag fa yàlla jaar ak ñoom jéggal leen seen bakaar ak ya ca topp ak ya ca topp comme waxtu wi dafa gàtt du ñu mën rekk lu dul loo yemale ko foofu mbokki jullit yi mbokki déglukat yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak i seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw ànd ak seen xarit Abdullahi Cubb ñu dellu si ci seen émission kalimatul xaq pour fas yéene continuer waxtaan ak yéen nanu ko doon defee ci émission yi weesu ci istuwaaru yonent yàlla Adam alayhi salaam mu mel ni mbokk yi gis nañ ne yàlla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem ba ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka ya nga xamanteni ni ñoo nekk ci habara ñu ne baada an xalaqa allahu aadama min attin wa sawaahu wa nafaxa fihi min ruuxihi خلق منه زوجه حوى ليسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعل يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من أجل نبي الله بند سنو آدم تبن دفر كبام جيك تمام روحم بند تيوف والو تامو نمغ سوخنام سوسو دي حواه mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju féex jë ñu fay xëy di fa gont di xéewlu ci lépp la fa yàlla def ci xéewal yàlla may leen fa ñu am e, droit ci jëfandikoo lépp lu nekk ci àjjana moo xam garab la walla leneen wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gi bu leen ko laal ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne iblis laanatullaahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen fexe ba nax leen te nam leen naxe moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am dangeen ko am te itam du ngeen dee ba mukk te dangeen ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi daa di leen di giñal nag giñ lu foor ngeen gis ne iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaare ci picc mu ñuy wax tawus di jàmm jóg ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxaya gis ngeen ni ibliis dafa nax jaan ne ko dangay ngay soo ŋaaŋee dana soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ danga fexe da nga dugg àjjana boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn duñu gis wante wax nanu ni li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàllu jikkoom jaan mësta am dangar rab wu sell la woon wu rafet rab wu baax rab wu yiw mbindeef bu ko masaane gis da koy sopp te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk néegu suñu maam aadam bi mu nekkee ci àjjana wante keroog ba mu dugalee iblis ci gémmiñam waxtu woowu bis boobu ci la amee nag dangar moo tax ku mu laar rek nga yàqu dangar ja nekk ca gémmiñ ga dara defu ko ca lu dul lam ca dugaloon iblis kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul looloo tax jaan am dangar iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy adam ak suñu maam xawa laaj ko ne ko looy jooy mu ne leen dama leen yërëm rek ndax day nde xaleel xamu leen dara garab gii leen yàlla tere du dara taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga wante mbokk yi nuxibu an natasaa'al kayfa daxala iblisu ila aljanna bacda an taradahu allahu minha wa yumkinu an yuqaala fiiha fi dalik innahu daxala aljanna bacda an turida minha kama yadxulu lissu laim ñu ni danañu laaj iblis lu tax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàq ñu ni eh, yàlla ci boppam moo seetaan rek ci maandoo comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitig sàcc ca lekk la nekk ci bitig ba yépp raw noonu rek la yàlla seetaane iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu maam aadam lépp yàlla ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom waaw nga xam ni kon yàlla ko mu seetaa bu seetaane ci mandoom rek lépp yàqu moo tax nag nit ñi di ko ñaan wallu ci yërmande mu mel ni suñu maam aadam alayhi salaam wax ne ni déglu gi mu déglu seytaane dafay wane rekk ne nit léeg-léeg dana di doye di walla mu réere boppam ba tax itam mu déglu ko mu warta déglu moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ko ne la ko war a jox ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa àllaaxira moo tax suñu maam adam bi mu joxee noppam iblis ci la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu réy googu bu nekkee woon ca aljanna ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rekk fàtte fàtte rek moo tax mu def ko ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila aadama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllëranteeg aadam